asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa diaspora bi maa ngi nuyu kenn ku ne si turam ak santam man la Yuma Aïssé Ba fii si États-Unis di dellu si waat encore une fois de plus di waxtaan ak sama mbokk yi si li nga xam ne mooy immigration clandestine situation bi nga xam ne mi ngi vraiment métti na si si doomu aadama yi métti na partout aussi en Afrique mais nag di ñëw nag di waxtaan ak sama moromu jigéen ñi lay waxtaanal parce que xam nga ñun ñooy jigéen yàlla ñun lay def ñun ñooy jur ñun ñooy ëmb juróom weer. mu judd ñu kontaan wante nag lépp lu ñu bëgg si àddina muy réussite ku nekk da nga bëgg sa doom réussir nee nañu yaay kese mooy xool doomam mu gënal ko boppam wante nag kon comme suñu suñu doomam ñu gënal suñu bopp war nañoo xam ne alalu àddina gi warul tax ñu bàyyi suñuy doom di dugg si ndox mi. ba ñu ne corona dafa jot kenn ku ne su ñun da nga toog di waxtaan ak sa njaboot ne ko moytu leen lii takk leen masque yi def leen lii def leen lii kon la même chose que ni nga xam ne corona bi tey jii li mu rey. li immigration clandestine rey moo ko ëpp ñoo ñëg ko nag donc kenn ku ne suñu war a jël responsabilité waxtaan ak sa njaboot waxtaan ak sa doom waxtaan ak sa rakk ba nga xam ne ko alalu àddina gii dara àddina jaru ko ndax nit ki bu xasee ba bakkanam dem c'est fini amatul amatul leneen lu muy am alors que wërsëgu doomu aadama suñu borom moo ko yor fi fi nga ko war a jotee rek nga koy jot donc jarul xaru jarul kër yi nga bëgg bëgg sa doom réussir ba mu jaral la nga jël sa xaalis jox ko ko ne ko jëlal bato pour lan pourquoi réussir am na ñun ñëpp bëgg réussir ku ne bu doon sa sago sa doom mooy gën si doom yi waaye nag bëgg sa doom bëgg sa réussite bëgg réussite ba mu jaral la nga jël sa doom jox ko xaalis na ko demal yéeg si bato yi wala nga dégg sa doom di ko kafe wala di ko waxtaane sax nga di ko nga di ko si dooleel wala di ko si d'accordal loolu ñun ñëpp war nañu def attention ni ñuy toogee di waxtaan ak suñu njaboot gi leen ne moytu leel bi moytu leel sàngara si noonu lañu war a toogee suñu doom ji di leen ne moytu leel yoon bii ndax tey jii ni xale yu góor yaa ngi siy dem di dee bu ñu deewee kan moo ñàkk du ñun waajur yi ñun ñooy am lu ñu metti te nag yàlla ji li mu yor du jeex de te ku ko gëm da nga ko war a wóolu xam nga gëm yàlla rek dafa ne gëm naa yàlla waaye wóoluwuma ko yàlla lu mu bind si jëw doomu aadama da koy am donc jarul xaru jaru ko nañu waxtaanaat suñu biir waxtaanaat suñu njaboot yi li nga war a jot rek ngay am si kaw suuf nañu jàng nañu wut métier taxaw na leen gouvernement bi jàppale waaye ñun tamit tout doit commencer daal les maisons nañu jàngal suñu doom yi nañu wutal métier suñu doom yi nañu yar xale yi nañu waxtaan ak xale yi yoon bii du yoonu jàmm